comme niñ ko tàmm di defee rek euh, dañoo delloo buum ca mboy mboy ga ndax sama wax moom mënul génn Kaolack ndax aw ma lu dul Kaolack chaque jour bu ma taxawee loolu laay représenté sama adduna aw ma lu dul Kaolack te gëw ma lu dul Kaolack donc occasion bu am rek bu ñu war a mën a dimbali population bi rek ñun duñ xaar kenn pour ñëw dimbali population bi parce que nag bay say weewu tànk actuellement nii ñu ngi taxaw pour jox quatre cent maisons manam 400 maisons yi manam 400 maisons lañ tànn ci Kaolack si manam ci 5 quartiers pour jox leen pour jox leen luñ manam a pour luñ mën dimbaliko ci Korité gi. ñent téméru kër lañ choisir pour jox leen ay dund ci kor manam ci Korité gi maanaam nag nekk commencé wuñ ko tay depuis ba Covid 19 bi commencé ba tay chaque semaine ñu ngi Kaolack di dimbali population parce que amuñ lu ñom ñun amuñ lu ñom donc nak lepp luñu am rek dañ koy manam dañ koy delloosi. ci fii nga xam ne fii lañ mën a fii lañ cosaanoo ndax mu mënuñ am lu ëpp Kaolack quartier yi ñu tànn Ndorong gii ma dëkk ci la bokk Tabangoy gii nga xam ne tamit fu laa cosaanoo it ci la bokk Passoir ci la bokk Touba Ndorong it ci la bokk HLM Saara gii tamit ci la bokk okaas aussi tamit ci la bokk lépp lu ci maanaam képp ku ci sa wërsëg nekk te nga yelloo ko ci kattanu yàlla dinañ ñëw ba ci yow jox la ko mooy que am na ñu bari nag ñu ngi def waaye nag ay waaye nañ maanaam nañ bàyyi ba buñ buñ soxlaa waa Saloum rek ñëw utiliser rek sànni leen nañ ko bàyyi maanaam moment bi ñu leen soxlaa nañ wàcce ci terrain bi dimbale leen te yàlla tax te kuñ ci dimbale te teyit maanaam tey teyit képp ci dimbale nañ bàyyi di jël sa carte d'identité képp kuñ ci dimbale buñ la joxee lu tarafatal lu tali tarafatal ay ni jël sa carte nañ bàyyi di jël carte d'identité nit ñi te dimbale leen te yàlla rek tax man na combat bi may xeex moy kan manam suñ population bi nañ leen bayyi ci liñ nekk manam ñu ak seen ngor waye buñ leen jël leen utiliser di leen sànni loolu ay xeex man yalla am nañ manam yalla amna lo xamé def nako ci ñun ñun waa Kaolack donc nak moy mbolo bi ak aussi tamit fonkante bi suñu biir donc nak motax lu bari gëm naa bu ñëwé tamit fi Kaolack du fi manam manam do fi tok day ñëw rek dem ci gàttanu yalla donc nak ñu ngi balu ñëpp ak di baalu ñëpp bare ñu ko bare ko ay bare yu bare bare bare bare bare bare bala déwén ci heure bi ni waa maanaam ñun ñëpp maanaam ñun ñëpp ñu nekk ay milliardaire waa ñuy julli ji nag a ah, nañ ñu respecté distance yi aussi tamit kenn ku ci nekk boo ko mënta am tamit maanaam maanaam boo ñëwee ba ci jumaa ja maanaam bu ñu la joxee gel ngir yàlla utiliser ko bu fa ndox ak saabu amee nga raxas say loxo ndax ma ndax feebar bi lu ko maanaam maanaam lu ko lawal dafa gaaw donc fi mu toll nii loolu kese kese kese ñu ñun waa Kaolack ci loolu la ñu war a mën a maanaam ci la ñu war a xeex pour que maanaam maanaam fe maanaam maanaam fagaru moo gën faju comme ni ñu koy waxee te gëm naa ne ñun moom maanaam ba addunay tukki tamit lépp lu ñu mën a lépp lu état teg mu ñun waa Kaolack duñ maanaam duñ maanaam duñ ci duñ ci mës a teggi tànk